Euh, di wax ci budget bi nga xam ne ñoo ngi ko xayma ci 86 milliards jóge ci 85 milliards en 2023 en 2022 moo ngi woon ci 107 milliards donc su ñu xoolee depuis 2022 mën nañu ne budget bi wàññeeku na même si fekkee ni 2024 bi yokk nañ ci tuuti euh, lu ñu ci seetlu mooy lu ngeen cëral service déconcentré yi dafa tuuti te ñëpp xam urbanisme compétence transférée la dañ ko jox commune yi te da ngeen war a liggéey ak commune yi jokkoo ak ñoom pour urbanisme mun a dox mais service déconcentré bu mel ni service départemental bu Sédhiou nga xam ne en 2022 moo ngi amoon 14 millions ci crédit en 2023 15 virgule 8 millions en 2024 zéro donc gis nañ ni foofu dara mënu faa dox te Sédhiou quand même am ay euh, ville yu mel ni Sédhiou Marsassoum Dianamalaari te ñoo ñëpp soxla ay compétences en matière d'urbanisme te service déconcentré yi ñooy jàppale communes yi surtout ci àll bi di daf office d'agent voyer donc dañ ko soxla vraiment pour ñu jox leen ay crédit leneen li ci document de planification yi gis nañ foofu tam am nañ ci problème parce que lu ñu seetlu En termes de couverture nationale en document de planification urbaine actuellement on est à 15 pour cent te xool nañ ci budget bi lu ñu ko jagleel planification urbaine néew na torop yaakaaruma mu dépassé 2 milliards. donc loolu tamit war nañ ci def ay jéego pour que dëkk bu mel ni par exemple Sédhiou nga xam ne dans le plan national de d' de développement territorial ñoo ngi ko def métropole régional donc mu mun a am un plan directeur d'urbanisme yeneen dëkk yi à la ñu defal leen ay plan d'urbanisme de détail loolu tamit bëgg naa ci wax si le plan cadastral loolu ministre des finance lay concerné donc un plan cadastral national am ngeen ay projet yoo xam ne jagle nañ ko pro Procasef Promogef et cetera kañ nañuy am un plan cadastral sur tout le territoire national donc loolu tamit je pense que beneen chantier la beneen bi ci retard si programme yi programme logement yi am na ay retard yu bëri su fekkee programme public yi ak programme privé bu ñu ci gën a seetlu nag mooy dans le pôle urbain de Diamniadio nga xam ne Macky Sall moo ko lancé mais on voit que programme logement yi tardé na trop mën naa si citer le cas de Télium ba léegi am na ay logement yoo xam ne livré wuñ ko seen acquéreur ñoo ngi xaar depuis un an joxuñu leen calendrier joxuñu leen dara amul explication ban contrôle ngeen di si def pour mën a accélérer ces programmes de Sédhiou wax ci soxla nañ fa également ay zones d'aménagement concerté ay zone d'aménagement concerté dans les principales villes Sédhiou Bounkiling Goudomp Marsassoum euh, modernisation cités religieuses yi également